على أحب خلق الله إليه مولانا محمد رسول الله وعلى كل آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بالهدى والإيمان واليقين إلى يوم البعث والنشور wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu santee borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko mu wuutuñu ci sant gi ñaan ko itam mu wuutuñu ci julin ñu ci sayidina muhammadin rasulillah ak mboolem ay saxaaba mat ak taabiina yi ak ñi topp njubam ba bés bañ ñu ngi waaj julit yëpp salaam aleykum wa rahmatullah ñu ngi nekkoon ci siira muy silsila fi siirati nabi sallallahu alayhi muy ay sëri sëri yoo xam ne ñu ngi ci doon waxtaane jaar-jaaru yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne tudd na njariñ li bokk na ci xam ko dina jur nga sopp ko te yonent bi sallallahu alayhi boo ko soppee dana jur nga topp ko te yonent bi sallallahu alayhi wa ku ko topp di nga jub ndax borom bi subhanahu moo ne wa in tutiuhu tahtadu te ku jubba dee yàlla dina la teral yàlla ñu ko yàlla defal ñun ñëpp ñu àggoon nag gannaaw baada wafaatihi sallallahu alayhi wa sallam ñu àggoon ci chamailuhu muy melokaan yi nga xam ne làmboo woon na ko ci xalqiyati ci bind nan la ko yàlla binde woon te jàng nañ ni mu rafete lool waaye itam wal xulqiyati ak jikko te yàlla moom la ko taggee wa innaka la ala xuluqin azim muy jikko yoo xam ne ba ca gën a fës mooy at tawaadu wàcc bopp ni ñu ko jàngee fa tabaarakallahu ci ni yonent bi daan lekkee ni mu daan naane ni mu daan solo tabaarakallahu ni mu wàccee woon boppam fi mu daan tëdd nga xam ne ci der lay tëdd yoo xam ne la ca nooy xollitu tàndarma la wala boog euh, caru garabu tàndarma dund dund gu modeste ba ni mu fi wuyoo boromam à l'âge de soixante trois ans tey nag ñu ñëw ci beneen pàcc ci dundam mooy mujizaatuhu sallallahu alayhi wa sallam muy kéemaanam yi nga xam ne yàlla jagleel na ko al mucjizatu nag dañ koy faral di wax masdaru miimiya la ci ajaza yajizu ijazan wa mucjizatan arab dafay wax nit bu télee dara danaan ajaza fulaan diw télé na an shay'in ci nàngam diw télé naa def nàngam maanaam mooy mënu koo def ñu ne ajaza lott na ci def nangam yajizu mu ngi nii lott na ci mottali li mu bëggoon euh, ijazan ak lott wa mujizatan akuk lott maanaam kon nga gis ne mujiza mooy loo xam ne dafa lottuloo dul yonent pour mu def ko looloo tax ci olof ñu firee ko kéemaan ndax kéemaan li tax mu yéeme dañ koo miinul woon ci aada muy am kon kiimaan lay doon loolu nag bépp yonent bu yàlla masa yabal daf koy jox ci wàllu pouvoir ci wàllu leer pouvoir mystique boo xam ne dafay ànd ak moom mu mel ni ay jëmm yuñ gisul ba moom lum tëlee def bu joxee ñooñu ndigal ci coobare yàlla rek ñu def ko loolu dafa mel ni ni ko ibnu Ashir waxee dafay mel ni day wax ne sadaqa hadha al abdu fi kulli xabar dana mujiza li muy firi mooy bu yonent bi ne ab yonent la mbokkam yi sûrement dinañ nekk doo yonent ndax nit nga comme ñun loolu moo mas a am yonent bu mas a ñëw dañ naan qaalahu qawmu innaka basharun mithluna yow nit nga comme ñun ban nga war a mën a am te yow yaa ngi lekk di naan di sol li ñuy sol dëkk fi ñu dëkk kon nit nga ni ñun wax nañ dëgg nit la ni ñoom waaye moom yuuxaa ilayhi yàlla da ko wax yu te ñoom wax yuw leen maanaam yàlla da koo yónni te yónniw leen léegi nag bu boobaa fardan waa dëkk ba dinañ ko wax ne léegi kon justifier lan mooy wane ne yow yonent xam nga loolu ci xel ñëpp koy nangu nangam laa doon nangam léegi wane luy tax nga ne nga doon nangam bu ko defee yonent bi loolu tax yàlla boole ko pouvoir yooyu jox ko ko pour bés bu buñ ko bëggee tiiñal ci indil loolu moom bu ko defee mu def ko ci defin goo xam ne kenn du ko man loolu moo tudda lott gi nga ne ah ndax jamono ju ne am na ay buxaaba yuy def ay kiimaan mu ne waaw kay kon loolu la mujiza di jariñ jamono ji ne mujiza li tax muy tudda mujiza mooy li ñëpp télé ndax jamono ju ne maamankat yi dinañ xam liñ man fi mu mën a yem maamankat boo gis man na lu ne ba mu des ab néew bu mu dekkalaat munu koo dekkal maamankat bu ne mën na lu ne ba mu des soppi ay jëmm fekk loo xam ne lii la woon mu soppi ko munu ko léegi nag yonent bu ñëwee moom fa yem moom fa lay dale pour yéeg moom ca kaw loolu moo tudd al mu'jiza annabawiya ñu wax ne sëdd nañ ci nitu yàlla yi nitu yàlla yi itam yàlla daf leen di nattoo ñuy dem foo xam ne effectivement dañ leen fay weddi bu boobaa itam ñoom it bokk na ci seen aada yàlla jox leen kiimaan goo xam ne xaw naa niroog bu njëkk ba waaye moo koy gën a foor loolu la ñuy tuddee moom it alkaraamatu ijaaz lay doon maanaam karaamatu mooy firi may ndax comme moom du yonant bañ war kaa gëm par kon ijaaz rek lay doon te moo di euh, maanaam karaamatu mooy firi xéewal ku ko yàlla may rek euh, kon loolu moom lañ doon taarifee lan mooy mujiza mujiza mooy loo xam ne mëneesu ko lul ci coobare yàlla yàlla nag danay def yonent bu ne jamono ju ne la nga tombeel ci ay kéemaan mu gën a yëm nit ñi yow loolu la la yàllay jox ba nga doyal ba man ci lu kenn mënul moo tax ma jàpp ne jamono ji bu yàlla doon yónni yonent wootu xaalis la koy jox ndax moom mooy ijaaz bi gën a yéemi jamono ji ndax ni fi ko nit ñi teg euh, jamono Seydina Adam Seydina Adam ay garab la fekk ci àdduna moo tax mu xamoon ci man ci lu kenn mënul woon Idris fekk na tabaarakallahu nit di commencé yeewu mais munul bind munul wax Idris moo njëkk a bind loolu doon mucjisa noox seydina noox fekk na tabaarakallahu nit commencé xàmmee di ràkkaaju bay jaamu xërëm mu ñëw jàngal leen loolu ñu bañ mu defar gaal pour la première fois njabootam di ko ree muy njëkk gëmul mu naan in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun ba mu defaree gaal comme ñoom suñu gis gaal wa yasnau al fulk wa kullama marra alayhi mala saxiru minhu ba mu jeex waaye yàlla alak leen ijaaz ba mooy gaal goo xam ne ni ña ca dugg kenn labul ñooñu ñëw produire at àdduna walla moom moomu ci boppam sax ak ay doom ba ci Seydina Xalil ñëw nga xam ne ñëpp gëmoon nañ ne safara day lakke waaye yàlla nee na qul naa yaa naaru kuuni bardan wa alaa ala ibrahim ñoom pénalité maanaam duma gi gënoon a metti ci biñ gëmoon ci seen jamono moo di ku leen te ñu taal dugal la ci moo doon dugal gi gën a tar ba ñu foogoon ne moom la gën a moo gën a tar moo musal suñu maam ibrahim alayhi salaam mu mucc mu doon kéemaan gu rëy te ba tey neexul a dabu ñu ñëw ci sayduna tabarakallahu yusuf moom ci wàllu gestion économique fekk ne conjoncture économique mondial amoon ci jamono jooju moom ci wàllu gestion la doone kéemaan ba yëkkati tout un système muy Égypte euh, ij'alni ala xazaini ard inni xafidun amin ñu dem tabarakallahu sayduna Muusa moom nag fekk na njabar yaatu njabar koo gis mu ngi ubbi néegam di ñaanalaate ak di njabar ñu dem ba daanaka fi ñu waroon teg borom bi njabar lañ fa teg ak xërëm moo tax bi ñëwee yàlla jox ko benn yet rek yet bi matul kilo lu simple te yet boobu ci lay defee miracle am wa ma tilka bi bi bi yaminika ya Muusa qaala hiya asaaya d'abord atawakkau alayha wa ahashu ala ganami wa liya fiha maaribu oxra yàlla ne ko alqiha te loolu la ko doon doye moom sàmm la woon sàmmkat nag ku ne xam na ne dina yor yet léeg-léeg dàq jur yi la ciy jublu mbaa bu ñëwee fu garab am mu bàccal leen ci mbaa mu lonk ko ci benn mbuus téye ci saagam mbaa bu amee lu ko nar a mu puuse ko loolu mooy ma ari bu loolu la foogoon ne yet wi loolu la man yàlla nekk nag alqiha sànni ko mu sànni ko bam ko sànnee la ci pexem jeex fa ida hiya xayatun tasaa beneen bi mu ne sobaanun mubin mu biin mu doon kobra bu mag boo xam ne moo ëpp bâtiment bi xam nga yet wi tollul noonu yet bu tollul ni kilo bu demee ba génne jaan boo xam ne toll na ni bâtiment miracle moo ci ñëw mais yemu ci talaqaf ma sana'u ba mu demee ci na ba mu yéem ko mu foog ne njibar la woolu moroomi njibaram daf ne Moussa dana leen alqumaantum mulqun sànni leen li ngeen bëgg mu doon kéemaan yépp ñoom ñu sànni ko yooyu di cëppi cëppi euh, Moussa sànni yatam bi mu lekk yëpp maanaam li nga ci xamee mooy ndekete kéemaanu Moussa moo gën a yéeme kéemaan yële loolu moo tudde mu'jiza kon ñoom liñ def sihr la tudde mais kii mu'jiza la na def mal interprétation ne ah yow kon jibarkat nga seulement danga raw ñii rek déedéet raw comme moom nangu na supériorité bi nangu na ne Moussa moo raw ñii mais ci interprétation la juume mooy lan la lii du njibar mujisa la de même que itam yàlla dogal euh, bi njibar googu demee ba avancé dafa juraale beneen facette bu ñuy wax médecine mooy faj loolu mooy continuer di continuer ba yonent yàlla Isaa ñëw njibarkat yu bari mujj di fajaate comme li mu xawee léegi jël reen bi faje ko kii jël reen bi faje ko kii mais amoon na jàngoro yu leen tëj te mooy nit ku silmaxa kenn mënu koo faj mooy nit ku euh, juddoo la faj kenn mënu koo faj ak yu mel noonu ba fii may wax ak yow kenn faju ko yonent yàlla Isaa ba mu ñëwee fekk médecine avancée lool mu def nag luñ manul te mooy uhyil mawta fekk néew bi dee te décomposé wul wala ki dee ba doon suuf mu ne ko xum bi idnillah jugal ci kàttanu yàlla kooku jug taxawaat fëgg bopp bi loolu médecine yàgg ko fa defe naa ba bisu tey jii Isa fekk na koo xam ne dafa judduwaale gumba mu ray ko kooku commencé xool fekk na koo xam ne dafa judduwaale lafañ mu ray ko kooku jóg xam nga loolu ba tey ba fii may wax yow médecine yàggagu ci loolu mooy ijaaz loolu nag lañ bëgg a waxtaane ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bu dee loolu nag ci cadre moom sallallahu alayhi wa maa ngi wax bismillahi rahmaani rahim dañu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa li ko yàlla jox ci mujiza dafa yéeme toog di ko tudd sax xeet la ci fo ndax man ngaa nettee yonent yàlla Muusa waaye kiimaanam yi weesuwul yetam woowu ak leneen ak leneen ak xeer ba doon génne ndox ak yu mel noonu waaye mënees na koo lim yonent yàlla Muhammad nag li tax mëneesul lim moom ay kéemaanam moom ci boppam kéemaan la moom jëmmam doxalinam kéemaan la ay waxam kéemaan la diineem kéemaan la bokk na ci kéemaan gi gën a rëy nag ci kéemaanam yi mooy kéemaanu kéemaan yi di alquran alquran rek rek mujiza la moom moo wax ne yonent bu yàlla yónni jox na ko ay kéeman maa amana bihi qawmuhu maa baasa allahu min rasulin illa uutiya maa amana maahu e, qawmuhu wa ama alladi uutiituhu fa cilmun awxaahu allahu ilay fa ar fa ana arju an akuna aktharahum taabia yonent bi nee na amul benn yonent bu yàlla mas yónni lu dul jox na ko ci ay kéemaan ak wax ju rafet ak mën a wax lu tax aw nitam war kaa mën a gëm moo xam nag ñu gëm moo xam ñu bañ a gëm waaye kenn ku ne joxale na ci yóbbal luñ la war a gëmi mu ne Moussa jox na ko yet keneen keneen noonu comme niñ ko libi mu ne nag fa amma ana man nag fa yu aw fa ilmun man xam-xam lañ ma jox sagesse boo xam ne aw xaahu ilayya yàlla da ko inspiré ci man mu doon man sama kéemaan xam nga ñële ay yat la ñuy dóor ak ay géej ak yu mel noonu ak ku dee mais dañuy gis ne loolu maanaam ñaka fekke rek ñoo ko mën a gëm xam nga néew bi dee boo ko dekkalee ñaka fekke dinañ daanu leer jooy gëm mais nag mën nañ koo nettali ñeneen ñu ne loolu mënul nekk ndax ñoom gisuñu ko te xanaa manoo ku ne nga dekkalal ko ab néew bu yàggee kenn du xam lu muy nuru kon kéemaan lum yéeme yéeme ñëkk a gis rek ñoo ko mën a gëm <clears throat> yonent bi nag ne yàlla xam loolu tax man mu jox ma kéemaan goo xam ne lu ñuy gis la di ko laal ba addunay tukki fa ilmun xam-xam la boo xam ne awxaahu llahu ilayya yàlla daf ma ko wax yu ba pare bim ko koy wax wax yu fekkul mu jàng ndax bu fekkoon maîtrise la am wala doctorat ñu ne c'est c'est normal parce que livre bi war na ko mën a bind parce que njàngam ak gëstoom may na ko lii waaye koo xam ne ummi la mënul liir illettré la ba ni muy wuy jee boroomam andi fi nag kéemaan goo xam ne ba àddunay tukki kenn gisatul lu mel noonu kon ndekete mujiza al kubra di mujizatul euh, euh, euh, mujizat ndekete mooy alquraanul bu ñu demee nag ci gëstu ci alquran gàttal ko lool sax sax mënoon na jël waxtaan yu bari alquran dañu wax ni am na maanaam juróom ñaar fukki junniy kéemaan moom alquran ci boppam mucjisa la mais alquran ci boppam qaadi iyaad moo ko wax ci shifa nee na alquran ci boppam am na moom soixante dix mille mucjisa yu nekkaat ci biiram te moom benn mucjisa rek la de alquran ci boppam benn mucjisa la bu yàlla jox yonent bi pour l'éternité mais soixante dix mille mujiza mu ngi waat ci biir alquran kon en réalité alquran kese doyoon na mu doon kéemaan ci yonent bi alquran nu mu doonee kéemaan mooy arab yi ñoom bi yonent yàlla Isaa yéegee ci kaw médecine moo doon dox mais yàlla dafa dogaloon arab yi dëkk ci kaw kaw ga nga xam ne amuñu ñoom benn culture ci wàllu lu jëm ci médecine ci wàllu science ci wàllu ndàngam yàlla nag ci xikmaam développé ci ñoom li ñuy wax science de l'argument l'argument majeur la leen yàlla may mooy xam-xamu wax wax muy li ñuy tuddee al luxatu articulation liñ ci man jël wax di ëlbatee ka ëlbatiwaat di ëlbatee ka ëlbatiwaat ak rafetal wax ak di ko defal montage ba nga xam ne ni arab di waxe kenn mësul gis wax ju rafet ba àgg foofu dañu am lu ñuy tudde balaaxa am lu ñuy tudde tasbih baliix dinañ bëgg a wax dara mais dañ koy nirale leneen déggal kiy wax ak mbooloo ci arab yi ne maa ngi leen di yëgal ne damay gësam garabu wax garabu wax amul mais damay gësam garabu wax ngir yàlla ku ci gis meññanta bu ñor na nga xam ne moo doon sama yéene waaye ku ci gis meññanta bu xaay na nga ma ko jéggal te xam ne gësam dina waddal lu ñor ak lu ñoru xam nga balaaxa boobu tasbiya la mooy garabu wax amul mais moom dafa bëgg ne day wax wax jooju nag di ko nérale garab luy jariñ man na faa ne ak lu ñorul luñ warul woon a wax ñi ñaan wax lu ñor lu ñorul léegi nag muy wax waa jooj ne loo ci gis ñorul rek nag ma ko jéggal te xam ne gësam gee tax ndax irtijaal la mooy kuy wax di génne kon arab noonu la meloon ci mën a wax yàlla dogal bi ñu nekkee di wax moo jur ci ñoom al euh, li ñuy tuddee ilmu shi'r mooy way ñu mën a way gis nga suara u sitt daanaka ñoom ñi ci ëpp fekkee ñu dund jonant bi muy antaratu labid tabaarakallahu ak nabiratu dubyaani ak tabaarakallahu euh, zuhayru ibnu abi sulma ak euh, tabaarakallahu jël ko ba mu jur ba mu àllaqaatu sitta wala sab am ñoom ñëpp ñoo féete yonent bi tabaarak ñoo jëkkoon yonent bi mais wax nañu ba bind ay diiwaan ci mën a wax rek te waxuñu dara ak ibnu ibnu qays al-Kindi nga xam ne daan na tagga fasam ba nga foog ne fas bi président de la république la ndax mën a wax rek ak ni ñuy waxe waaw époque boobu nag yàlla da leen bàyyi ba wax ñor xom mu ña ci jamono jooju lañ tuddee al ahbaar fuure yi moo di ñi de te fuure pour nga nekk jamono yooyu dangay dem ci grande ville yi fu mel ni Syrie jàng fa ba maîtriser tabaraka comme Nadr ibnu Haris li mu daan def muy ki daan wax asatirul awwalin nag tataba fiitum la alayhi bukratam wa asila ñoom dañuy jàng ba xam ñëw di jombal seeni mbokk époque boobu la la yonent Yàlla Muhammad gane àdduna ci Quraysh ñëw fekk ñépp kenn jàngul booleeg di jaamu xërëm mu ñëw di leen déglu déglu na leen ñeent fukki at weesu nañ ci gannaaw ne bariwul woon lu ma lu mu daan wax lu sumti ku noppi woon lu daan lu bari la ba am ñeent fukki at nag kenn miinew ko ci wax ju bari bariwul lu muy dugg bariwul lu muy génne tukki sax daanaka yim ci def ñett rek la kon doonul tukkikat kon ku ko gis da ko séen rek mu dem dellu siwaat deful dara xëy xëy nag ne iqra bismi rabbik jànga alquran joo xam ni neexaay bi kenn xamul fu mu toll bala nga koo xam nga déglu abdourahmanu euh, euh, euh, sudaysi wala tabarakallahu mahmudinil xusari buy jàng alquran ba bésu tey neex yi da lay yéem d'abord mu indil leen wax joo xam ne dafa neex lool mais li leen yéem mooy waxu arab la xam nga arab moo naan zahaba yazhabu ziha zahaban wala iyaban loolu waxi arab la mais bu jëlee loolu wax ko ci alquran a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim indi saar ñoom dañuy xëm donte arab lay wax mais bokkul ak bi ñuy làkk mu def leen kéemaan mais itam contexte bi araab bi di wax maanaam li muy wax d'abord xam-xam da cee nag information bu ñu xamul woon mu jaaxal leen yàlla ne boo leen ko bëggee weddi nag problème amul fatu bi suratin min mislihi indi leen rek saar yu mel noonu ñetti tahaddi la lool la tudd ulumu tahaddi ci alquran imaamu abdurahmanu suyuti jàngale na ci yu baree baree baree bari ci itqaan fi ulumil quran téere bu am solo la yàlla dafa wax bu njëkk fa'tu bi mislihi andi leen téere bu mel ni moom mu dema dem ba xam ne lott nañ waa màkk yëpp mënuñu koo def bu ñaareel bi mu ne fa'tu bi ashri suwarin muftarayatin comme moo ko inventé indi leen ma fukki saar rek comme kaamil bi cent quatorze saar la yéen dix rek laa leen laaj ñu xam ne mënuñu ko mu ne fa'tu bi suurati min mislihi léegi andi leen sax benn saar bu dul doon sax exactement comme alquran mais xaw koo niru min nit yi euh, mënuñu koo indi mu ne boog euh, indi leen bi aayatin mënuñu koo indi mu ne leen mais d'ailleurs ci la def taxaddi bu mag qul la in ijtamaat al insu wal jinnu ala an yatu bi misli hada al quran laa yatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin zahira te ba mu ko waxee ba tey kenn dindiw yàlla ne noppalu leen nit ñeeg jinne yi ñi juddoogul ak ñi dee bu ñu dajee woon ci benn dënd ala an yëtu pour ñu bëgg a créer bi mitti haza alquran lu mel ni alquran ji waxuma alquran carrément sax waaye lu xaw a niroog moom rek ci doxalinam laa yatuuna bi mitti yi duñ ko mën indi walaw kaana baaduhum li baadin zahira donte ñëpp a daje joxante seeni kàddu ak seeni loxo ak seeni xam-xam def ay séminaire pour bind téere bu mel ni alquran waxaat na ne walaw jaa min indi gayrillahi bu jaa bu dikkoon alquran ji bu ko keneen waxoon kudul yàlla la wajadu fi ixtilaafan kasiira di nga ci gis ay contradiction yu baree bari bii di weddi bii bii di weddi bii mais comme fi jóge benn la looloo tax kaamil bi du weddi boppam loolu nag ba mu ko waxee ba tey dama ne looloo am quatorze siècle ba fii may wax ak yow nag amul ko ko mën a tiiñal amul benn faute walla benn virgule boo mën a dindi ci kaamil bi waaw loolu du mojisa li mu gën a doonee mojis ku xamoon sax université bu daje professeur ya fa da nekk ak étudiant ya ak doyen ñëpp daje defar benn ouvrage passé ci cent Hmm? waaw ki téere boobu warul crédible warul am doole hmm? ah kay war na am doole mais gis nga bu amaatee ñetti téeméeri at rek génération bii ñëwaat dinañ ci gis thèse boo xam ne du valable la dëgg la dëgg waaw kaamil bii nag moom professeur d'université génn ko ab étudiant étudié wu ko dara benn waa joo xam ne illettré la d'après liñ wax mu mën a indi téere boo xam ne il est vieux plus de quatorze siècles te chaque jour waxuma ne histoire mën na cee dindi dara mais jamono ju ne kaamil boobu dafa mel ni jamono moo koy gën a dëggal ndax yàlla prédure na ci yu ñëwagul woon te lu àdduna gën a jege yawmal qiyaamati loolu di gën a feeñ xam nga wax ji mu wax ne euh, isa shamsu kuwirat wa isa nujumun kadarat loolu ñëwagum na ñëwagul bés bu jant bi di éclipsé euh, biddiw yi di éclipsé wu pour yàllay waajal wàccaay gu mag magga muy taxawaayu bis pénc xam nga loolu ñëwagul ñamu fii fekk nag ñoo ko mën a interpréter kon ak alquran noonu la mel dafa prédire yu bari fa tabarakallahu kon ki la gën a féete jamono rek ci gannaaw moo lay gën a dégg sax kaamil moo tax téere yi wax ne kon amul amul ku am droit ne kaamil bi kenn du ko tafsirati parce que leer na ba pare déedéet ndax jamono ju ne ña cay dund ñooy gën a dégg kaamil bi ñu leen jiitu ndax danañ boole dégginu mag ñi ak li seen jamono laaj yàlla moo wax masalan ne wala qad wassalnaa lahumul qawla man maa jotal wax yi laallahum yatazakkarun pour nit ñi mën a am tazkira maanaam mën a conscient ci dëggu alquran bi damay laaj yàlla bi mu naan maa connecté wax yi pour mu pour pour nit ñi jot ci ba mu kay wax ñi dund vingt et unième siècle ak ñi nekkoon tabaarakallahu septième siècle ñen ñoo ko gën a dégg ah xam nga mawaqiu tawaasul noonu lañ ko tuddee mooy réseaux sociaux lan lay defal pour jokkale ay wax yàlla ne maa jokkale wax yi wala qad wassal naa maa connecté lahumul qawla les sons et les euh, paroles laallahum yatazakkarun pour ñi ci connecté wu mën a am tabaarakallahu euh, euh, maanaam conscience positive ci njubu alquran damay laaj léegi loolu buñ ko firee ci jamono ji est-ce que duñ ci mën a am beneen déggin moo tax kon alquran kenn waru ko tënk loolu nag laa wax ne mu'jiza la ndax normalement wax di nga ko wax internet ñëw war ko weddi waaye alquran lu mu gën a dem day gën a dëggu day gën a doon actualité loolu kon mucjisa la fekk arab yooyu nag maroon a wax alquran defar leen taxaddi taxaddi boobu laa wax mucjisa la ba tey alquran li fa nekk nag ci ay ixbaaraat min al xaybi ak xulibati ruum waxoon nañ ko ci gannaaw hum min baadi xulibati ruum hum min baadi galabihim sa yaxlibuuna fi bid'a sini xulibati ruum fi adna al wa hum min baadi galabihim sa yaglibun fi bid'i sinin kon nga gis ne loolu bi ko alquran di wax amagul woon waaye weesu nañ ko ci gannaaw ba mu amee loolu mu'jiza la beneen mu'jiza mooy taxaddi la tabbat yada abi lahabin wa tab maa agna anhu maalahu wa maa kasab mu'jiza euh, taxaddi la yàlla dafa ne al abi lahab mi alku na te biñ ko koy wax moom mu ngi mu ngi dund waaw léegi diina ji ku tuub est-ce que Hmm? xam nga abi lahab bu bëggoon a weddi alquran danaan da tuub naa rek gis nga bu newoon woon ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah day mais abi lahab mu ngi fi kaamil bi ne fi ñuy jàng saar bi muy mu koy metti te mënul tuub te mënul tuub téere yi nee na yemul sax ci sayaslaa naaran mais moo ko dëggal yàlla dina dafa ne dinaa ko dugal safara mu ñàkk lu muy def taal benn taf safara ba muy jër jëri mu roof ci ñaari loxo yi ne wax leen Muhammad boroomam safara si may tëkkoo nekk man ragaluma safara waaw kuñ ne la di nga dugg safara nga dugal ci sa bopp dëggaloo kaamil damay laaj loolu moo tudd eh, taxaddil quraani euh, euh, euh, ba tax na alquran la fa nekk benn arab yi dafa mas di dox dégg benn julit di wax ne fasda bi ma tumar wa arid an il jahilin mu ne laa ila lii de du waxu nit bii balaaxa nit mënu ko wax ndax as-sad'u mooy lu ñu xaañ xaañ xaañ toujours foo ko déggee c'est fatal mooy luy gaañaate wala dëgg xaañ na ma xeer walla xaañ na ma chaise bi walla xaañ yonent bi bi maslaa bi yàggee yàlla dafa nekk xaañal alquran wa a'rid anil jaahilin te nga wan gannaaw ñi wedd maanaam waxal lu loo bëgg a wax damay laaj ndax loolu nit dina waxe noonu xaañal wax wax wax wax ju ñuy xaañ mu ne lii du waxu ni benn aarab yi romb kuy wax ne inna allaha yamuru bil adli wal ihsan wa itaai zil qurba wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi yaidukum laallakum tadakkarun mu taf gémmiñ gi lii de wax du waxu nit ndax luy lu mbaax tënk na ko loolu mbon tënk na ka ba pare tëj aaya bi moo tax nee nañu aaya boobu ku ko jëfe di jullit piir manam ku jëfe yim digle mooy yaamur bil adli wa ihsaan wa iitaa'i zil yim tere ku ko bàyyi di jullit piir yan yan an fahshaa'i wal munkari wal baghi nga gis ne kon alquran ni muy waxe ci koo xam ne nee nañu illettré la war ngaa xam ne kon mu'jiza la kon maa ngi bëgg jàngale ne alquran boobu xam naa mu'jiza bi sax bu Abdourahman Suyuti wala Qadi Iyad ñëwoon tey danaa nekk ëpp na soixante dix mille xam nga lu tax waa ji nga xam ne dafa am ay jafe-jafe ñu tegtal ko benn sëriñ buy ñaanalaate mu dem ci moom wax ko ay soxlaam yépp sëriñ bi bind faatiha ak ayatul kursi yu tëje ko xulu ak falaxinaasi tëje ko salaatu alal nabi ne ko demal nga jàmb ko soo paree nga naan ci bu soobee yàlla di ko raay fii metti di nga wér kooku dem ñetti semaine la ko def dellusi ci sëriñ bi ne ko doo nit keroog ba ma ko commencé laa commencé wér ba tey ba fay la alhamdu xool naa mais jàngoro ji jeex na ci man ba set wicc loolu du mooji sax ndax si soixante-dix mille yi la bokkoon ah man koy damay jàpp kon léegi àdduna bi ba mu daj xanaa ceer su bu nekk alquran mu ngi def kéema hmm? kon alquran ci boppam moom mucjisa la mais li mu enveloppé ci biiram ci ay mucjisaat la kenn xamul nu mu toll kon yal na yàlla fayal ñu yent yàlla muhammad mi nga xam ni moo ñu indil alquran jooju man toujours damay wax ne su ma gis man lu yéeme ba dab alquran ba nga xàmmee ba tey di jàng alquran bis boo xëyee di nga xam ci alquran lu bees léeg-léeg mbooloo daje na ah dañuy jàng kaamil jàng kaamil yéene ko loolu ngeen jàng dem mais yow fekk yaa ngi dund bés boo xëyee di nga digg benn saar wala benn aaya gëstu ci loo xam ne ba ci les proverbes yi nit ñiy wax courante alquran dina la dina la ci jox loo xam da nga koy dunde lu waay def boppam du olof a koy wax proverbe la ci alquran yàlla neen man amila saalihan tali nafsihi déjà loolu rek ku ko jëloon def ko dund da ngay noppal lu waay def boppam moo tax benn buur mag ñi dañuy nettali na dafa nekk ak benn waay waa ji ab sëriñ la ku dellu ci yàlla la mais kooku ni mu tuddee boppam mooy lu waay def boppam toujours ku ne ko xam buur nag xam ni muy stressé woo xam ni muy amee problème toujours lu ñu def rek bu buur bëggee wax waa ji nekk garaawul garaawul buur lu waay def boppam lu yàlla def dafa gën lu waaye def boppam lu yàlla def dafa gën mu ne mais loolu nu mu mën a nekkee ki nga xam ne day wax lu waaye def euh, euh, moo gën ànd ak buur bés di doxantu mais buur di dox ci waxtaan waxtaan wi neex ba ñu génne seen frontière u dëkk te bàyyi ñu ci xel bi ñu génnee nag frontière bi ba franchir frontière u jàmbur buuru dëkk boobu fekk yónni woon na ay dagam ndax dafa am sacrifice bu ñu war di def at mu jot ci dëkk bi sacrifice boobu nag waxtoom jot ñu ne góor gu mag sëkk lañ ko war a defe yàlla dogal bi ñu génnee ci frontière bi di dox ba yàgg buur bi fakkastalu bi mu fakkastaloo daanu ndekete tànkam tabaarakallahu dal na ci jaaseem jaasi ji jiitu ko tànk bi dam euh, dal ci mu dagg baaraam bi teg ko ah muy jër-jëri fa tabarakallahu ci deret buur bëgg a mettit lu di wax bu doon tey ñenn ñi dañuy saaga waa ji nekk déet déet buur bul jooy bul frustré euh, lii dafa gën lii dafa gën mu gestu dak yi ne kii daf ma yàpp yàgg nañ ma wax ne yéenew la jàmm mais tey laa koy def yow ku dem ba sa tànk dagg baaraam bi dagg na nii c'est fini nga naan lii moo gën waaye eh, ne gars yi dañ ko jël saax-saaxee ko yóbbu ko dem tëji ko ñoo ñooñu def demi tuur nag yóbbu ko dem tëji waa ngir buur jëppi gum ko jéppi buur na daal comme xës na génn na ànd ak leneen li des ci dakk yi mooy euh, arme bi euh, tabaarakalaaw dem ndekete génn nañ seen frontière di dox di dox ba yàgg gis arme bële doon wër nag la leen seen buur waxoon mooy nañ jël nit ko mat indi ko ñuy def ko sacrifice buur bi di euh, ñooñu dajeeg buur bi dak yi daw buur bi mënula daw ñu jàpp ko xaw ma dak yooyu ndagu luñ doon bi ñu ko jàppee takk loxo yeeg tànk yi dem ba ci buur buur ne summi leen ko ngeen xoolal ma ndax mat na wala déet ñu summi visité yaram bi yëpp ba gis tànk boobu ndeke tànk bi dagg na mu ngi ko takk ñu ne ko lii la la mun a ah man de sama baaram bi dafa daggale ñu ne malheureusement kii matul loolu ñu wax ko buur bi ma ko yewwi leen ko kon bàyyi leen ko xamuñu ne sax buur bële la ndax bu leen ko waxoon sax duñ ko gëm ñu bàyyi ko mu rejoindre tabaarakallahu palem dellu bi mu ñëwee nag toog sangu ba dal ki lay soog a fàttaliku waa jooju ne kii li mu waxoon dëgg la tànk bu dagg bi gënul ci moom ndax moo jur mu mucc nii mu rus nag ci li mu def yónniw dak yi ne leen dem leen wool ma baaj ñu woo sëriñ boobu mu ñëw buur bi ne man damay jéggalu parce que vraiment def naa erreur te mer a taxoon waaye wax digg yàlla langa nga ma waxoon ne lu am moo gën man confirmé naa ko ndax sama tànk bi bu daggul woon du ma dañ may rey te tànk bu dagg ak nit ku dee moom defe naa tolloo ñu sax mu nekk alhamdulilah kon santal yàlla mu nekk mais nag yow dafa am lu ma la bëgg a laaj comme nee nga lu waaye def moo gën mu ne ah lu euh, euh, maanaam euh, lu am moo gën waaw yow emprisonnement bi ma la tëj tëj ji ma la tëj yow nan la gënee ci yow waaye ji ree nekk mag yow a àndoon de buñ la jàppoon xool la nga manqué man man dama mat man la ñuy rey kon yow tëj gi ma tëj gi ma tëj moo gën ci man ma nit buur bi ree daanu ci suuf jël waa ji def ko conseil am tabaarakallaahu féetew ak moom beneen bi góor gi la koo xam ne ni day wax ne euh, lu waay def boppam ba ñëpp tuddee ko góorug bàyyi lu waay def boppam góor googu benn bés mu dem ca àll ba toog fa am jabaram joo xam ne daal bëgg ko jabar ji nag nu ne def na ko pour góor gi dee góor gi tabaarakallaahu yàlla di ko ci musal benn bés nag mu ne daal comme mu nga ca tool ya naa profitoo togg a ganaar posan ko ba mu yàqu dem jox ko ko mu reere ko rek bu dee foofu ba lañ koo yëg fekk suul nañ ko wala mu yàqu mu defar loolu fa tabarakallahu ngir bañ dara lu taq ci moom mu jël doomu wëjjëm doomu wëjjëm la jël jël yen ko kii bi nekk demal ba ca tool ya nga jox ko baay xale ba effectivement dem ba ca tool ya tegal loolu bàyyi dellu dawaat dellu bi mu dellusee see ay doomi baayam muy doomi soxna si toggoon ganaar gi ne ko yow foo jógee mu ne sam lañ demoon laa demoon tool ya fekki ko ñooñu ne eh ñu oolu ñetti xale ci ñoom ñetti xale ci ñoom ne nañ dem seete ji bi parce que comme suñu doomu tànt yi dem nañ fa ñu nit dañu war a def xale yooyu nag ñoo dem tabaarakallahu ba ca seen toolu baay fekk fa góor gi nuyonteeg moom ne ko waa papa mu ne ah mu ne ko papa ñun dañu xiif papa ñun dañu xiif dañu bëggoon lekk Eh, góor gi fekk góor gi bi xale bi indee bool bi ne ko tant diw moo la jox lii mën a tegal foofu lu waay def boppam loolu rek la ci wax xale yu góor yooyu biñ ñëwee di doomu soxna si togg ñam wi ñu ñëw ne ko ñun dañoo xiif mu ne bool a ngi foofu na ngeen ko jël lekk ko ndax lu waay def boppam ah xale yi daw song kii bi xool ko muy ganaar ñu ne eh lii de duñ ko wax paa parce que bu xamee ne ganaar la ba watul duñ ciy jot ñoom ñoo lekk nag ba pare fuddu dee ah, seen rakka jooju nga xam bokkuñu ndey ñëwaat fa doon leen topp si <coughs> fekk ñëpp tëdd mu yuuxu dem ci yaayam wax ko ko yaay mère ba ko yónni mu daw bi ñu ñëwee ci tool bi fekk xale yi daanu dee paaba ba moom ci mu nga ca mbaaram gisul bool lekkul bool ñaari jabar yi ñëw song ne ko waa góor gi xanaa yëgoo li xew mu ne ci lan ñu ne ko xale yi daanu de mu ne ah daanu luy loolu génne xool ndekete bool bool bi ñu fa indi woon lañ doon lekk mu ne ah ñii lu leen dal ñu ne bool bii de lañu lekk daanu yaayu xale bi yaayu xale yi di jooy ne kon musiba am na ganaar gi ganaar gi la ñu lekk mu ne ah ci lan noonu mu ne mais man togg andi woon naa fi ganaar mu ne ganaar gi de fële laa maanaam bool bi ba tey xooluma dama ko tegoon fële ne lu waaye def boppam ay doomam ñoo mujj ñëw lekk ko ndaw si commencé jooy ndax moom moo posone woon ganaar gi pour góor gi dee ay doomam dee góor gi ree ne ah lu waaye def boppam demal suuli ji say néew say doom nga rey nga gis ne kon man amila saalihan rek fa li nafsi te loolu mujizatul quran yi la kon alquran maa ngi bëgg a wax ne texte bi ci boppam kéemaan la xaraf yi kéemaan la shakli yi kéemaan la kon lépp di alquran mujiza la kon buñ ne soixante dix mille la man damay wax ne déedéet cerce bu ne soixante mille kéemaan dina génn ci alquran te yëpp kan moo ko moom mooy mujizatul nabi sallallahu alayhi wa sallam boobu mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi ci mojisa yi yonent bi dañ wax ne am na ñetti junni nekk kiimaan yu bokkul ak alquran trois mille kiimaan yu bokkul ak alquran ma wax ne xanaa benn kiimaan bu ne dafay génnaat yeneeni kiimaan ndax jàngale gi ñuy jàngale dundam ba tey rek bokk na ci bari na ko dee bala ngaa am fukki ñu fàtte la bu lay gën a bokk na ci kiimaan yi inshiqaaqul qamar téere yi nee nañu bi yàlla bindee weer wi ba ba àddunay tukki benn yoon la ko mas xar yonent bee tax mu xar ko waa Quraysh ñoo daje ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa nekk bëgg nañ la gëm mais pour ñu xam ne yàlla moo la yónni danga ñuy xaral weer wi nga xam ne sori na lool te suñuy maam ak maamaat yëpp dañoo ñëw fekk fi weer wi comme yow nag nee nga yonent nga dañ bëgg nga xaral ñu ko yonent bi dafa doon fekk téere yi nee nañ mu ngi doon pleine lune maanaam fukki fan ak ñeent jëm fukki fan ak juróom nga xam ne Quraysh mag ñëpp a ngi ci euh, saaxatul bayti muy kaaba gi pour féexlu yonent bi ñëw ba ne leen gis ngeen weer bi du yéen ñëpp gisa bokk ngeen ko gisandoo ñu waaw mu ne ndax bu ma ko xaree ba ngeen gis parti bi fële parti bi fii di ngeen ko nangu ñu ne waaw mu jàng li muy jàng tufli ñaan yàlla pour yàlla sagal ko ci raawi bi nee na diggante jabalu abi qubaysin abi qubaysin benn montagne bu ndaw la woon bu xaw a féete côté sud bu kaaba gi nee na ñu ngi toog ci kaaba gi di gis tabaarakallahu weer wi mais nee na li ñu yéem gis nañ ko mu séddaliku ci jabal bi ba ñuy gis jabal bi maanaam montagne bi ci digg ci digg ñaari xaru weer wi benn bi nekk droite benn bi nekk gauche ñuy gis montagne bi seen diggante te montagne bu rëy la mais gis nañu ñaari xaaj yi mais ñi nga xam ne dégguñu wax ñi dañ foog na weer wi dafa wàcc si weer wi moo ëpp àdduna nan lay wàccee fi kon xar na te tabaarakallahu mm, borom xam-xam yi wax nañ ne ba tey ku dem ci weer wi di nga fa gis ay fissure yuy wane ne am na jeexitalu xar-xar loolu waa Quraysh nekk ne saxaranaa Muhammad Muhammad daf ñoo njibar waaye lii mantane ne ñoo ko ñaanoon de bi mu ko defee ñu ne mënta ne coow li bari ci dëkk bi ci guddi gi coow li bari ba yàgg am ñu ne comme noonu la te def na ko te ñun ñu ngi koy gis nii ñu ngi koy gis nii mënuñu koo weddi mais est-ce que njibarul bët waaye même bu jëbaroon seen bët sax def na ko xanaa ñu ne léegi nañ bàyyi ba suba ñu yónnee ci yeneen village yi ñu laaj leen ndax liñ gis ñoom gis nañ ko wala déet buñ ko gisee ñu xam ne dëggantaan la mu neen baax na dinaa leen may ci suba ga effectivement ñu yónnee ci dëkk yëpp ñu wax ne wax digg yàlla ñoom sax jaaxaloon na leen dañ foogoon ne ñoom rekk a ko gisoon waaye weer wi effectivement xar na bi ñu ñëwaatee ba am taqaarir yëpp ñu dellu si abu jëhlin ne neexul ba neexul waaye waa ku mën a njibar la loolu dinañ ko ko nangul waaye dëgg yàlla xam fu ko jàngee mais maîtrise na moo tax yàlla taxqiq ne bismillahi rahmaani rahim iqtarabati saatu bés peñ ci jege si na wan saqal qamar ndax weer wi xar na te dafa bokkoon ci màndargay bés peñ ci ne balaa àddunaa tukki yàlla dina xar weer wi waaw yàlla mi ne woon bis penc agsi na ndax weer wi xar na loolu ba mu ko léegi rek moo mat quatorze siècle kon yëf yi gën naa jege kon mais malheureusement wa in yaraw aayatan ñoom nag buñ gisee kiimaan bu mel ni xar weer wi ñoom waa Quraysh yaqulu dañ naan lii daal sihrun mustamir lii daal njibar bu perpétuel la day gën di man njibar moom Muhammad wa këzabu ñu weddi li ñuy janoon wattabau ahwaahum ñu topp seen bànneexu bakkan wa kullu amrin mustaqir loolu ci nit man dara ki janoog weeru bëccëg ne gisuma ko maa ngi ci quatre di du matin kooku mënoo ci dara demal tëddi bàyyi ko loolu xew-xew la bokk na ci mujizatam ba tey moom yonent bi kéemaan yoo xam ne sax mag na juddoom ci shahada parce que maamam bu ñuy wax Ilias dañu wax ne bokk na ci kéemaan yi dafa am bés muy tawaaf kaaba gi bi muy tawaaf baat yi la doon wax waxu maamam ibrahim labbayk allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak bu nee nag la sharika lak ba noppi day dégg ci ndiggam baat bu set wicc buy wax naan labbayk allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak baat bu set wicc bu gëstoo du gis kenn mu waxaat ko bu waxee ba àggal keneen waxaat mu def ko ay yoon ba xam ne luy wax ci digg ginnaawam la ginnaaw gi lañu gëstu xam ne leeru yoon ci yàlla muhammad moo doon la bay kow noonu loolu mujiza la boo xam ne qabla al wilaadati la loo tax sëriñ bi ne lahu qabla al wilaadati mujizaatun bokk na ci ay kéemaanam moom yonent bi dàq gi mu dàq abraha te fekk na juddoogul tayran abaabila tarmihim bi xijaaratin min sijil loolu ci ay mojisaatam la bokk na ci ay kéemaanam yi ko yàlla may fil wilaadati ci juddoom moom bi ko yàlla ëmbee romb nañ ko juróom ñeent yonent ñëw nañ ndokkeel si yaayam mu tolloog weer yiñ ko ëmb bim juddoo ci guddi googu wa nuuru shamsi fil azami jant bi dañoo jokkaat weer bi euh, euh, leeram maanaam yow nii ngay gisee treize jot jant bi weextal bul foog ne laata yonent bi juddu meloon na noonu déedéet volume euh, leeraayam la yokk ci keroog ba yonent bi juddoo ba tey nag leer googu dafay yokk ba ba àdduna àddunay tukki ñu soog a wax wa jumia ash-shamsu wal qamar wa xusifati shams ci la éclipse nag di soog a amal kon leer gii nga am ak énergie bii nga am additionnel ba mën a def ay énergie renouvelable jël ay tabaarakallaahu support rek teg ka muy jële énergie ci naaj bi di la leeral yaa ngi ko amee ci barke juddug yonte yàlla mu te xamoo kon loolu mu ngi xew ci mu euh, mujizaatu wilaadatihi bokk na ci ay kéemaanam itam euh, euh, Amina nee na bi yonent bi juddoo gis naa ay kéemaan yu bare baree bari yoo xam ne laa daa ay ñu ciy dellu si waat tax romboon nañ ko ci gannaaw euh, ku fa dem daa ko seetaan bokk na ci gaaw ak màggam moom sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne li nit war a màgg ci benn bés euh, maanaam ci benn weer moom ci benn bés da koy màgg li nit war a màgg ci weer moom ci euh, maanaam li nit war a màgg ci at mi moom ci benn weer la koy màgge li nit war a màgge tabaarakallaahu ci fukki at moom ci benn at la koy màgge moo tax màggam gaaw ku ko gëj gis boo ko gisaatee da waa góor gi kan la ndax yàlla dafa mel ni dafa yàkkamti woon mu ñëw jagal àdduna te wallahi bi mu ñëwee ba dem xam nañ ne àdduna jage ñi baax ñëpp ci gannaawam la ñu baaxee ci mbaaxam itam lañ baaxe loolu bokk na ci mojisa yi nga xam ne nii c'est pas humain parce que ñu nit am ñaari at toll ni ponkal yàlla moom mayoon nag ko moom sallallahu alayhi wa sallam ah, bi mu demee ba war a doon tabaarakallahu nubuwam jege si risaala pour yàlla yónni ko nee na bokk na ci li muy fàttaliku bu daan dox ci eh, àllu màkka yi da daan dox bi lisaanin fasix dégg ku naan kaan assalaamu alayka ya rasulallah nee day dégg lu naan kaan ñu ngi lay nuyu yow ndawal yàlla bi mais bu gessoo du gis dara biñ ko yónnee nag la ko laaj jibril jibril ne xeer yi ñoo la doon nuyu ak garab ndax xam nañ ki ki nga doon daan na wax ne kullu kull fa inna jamia al xalq yaarifu nii illa usaatul insi xam na ne man maay rasulullah lu dul yéefar yi nga xam ne ay julit lañ ah, asawala yéefaru nit ñi ak jinne yi ndax julit yi xam nañ ko waaye yéefar yi mënuñu ko xam ci jinne yi ak nit ñi muy astaqalañ bokk na ci ay kéemaanam nag bi ko yàlla yónnee yónni gi ci boppam rek kéemaan la def ko axiru nabiyin moo mujj ci yonent yi wa sayyiduhum loolu kéemaan la yàlla may ko nag moom sallallahu alayhi wa sallam bàyyi may di wax ak moom bokk na ci bi ci gën a yéeme nettali nañ ko ci gannaaw dafa mas toog bés ci saaxadul masjid mooy kaaba gi toog noonu di waxtaan abu jëhlin toog ak waa Quraysh toog di waxtaan ba yàgg benn till doon dabu benn kéwél pour lekk ko bi mu daboo till bi di daw di daw till bi di daw till euh, euh, maanaam kéwél gi di daw kéwél dafa gaaw lool xam ne kii da ko bëgg a añe fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin mu jéem ko échappé comme ñoom xam nañ ne xam nañ ne kaaba gi nag waman daxalahu kaana aminan ku fa dugg rek euh, am nga sécurité tax na moom kéwél gi mu daw rek jublu jubal ci kaaba gi uh-huh. bi mu dawee dawee jubal ci kaaba gi euh, pour échapper euh, fa tabarakallahu till boobu fekk na abu jahlin mu ngi toog ak waa kufaaru quraysh till gi naka la def descente ba seen kaaba gi rekk defaat demi toppatul kéwél bi abu jëli ne kim toogal xëy na abu sufyaan la ne ko waaw yow jaaxle woo tey mu ne mu ne ko waaw till gële doon dàq kéwél gi ba ñëw ci kaaba gi seen kaaba gi tax mu rus delluwaat def demi tour moom maa àllamahu lan moo ko xamal ne ka ci kaabu fii urum la ba kenn du fi rayaate kenn du fi lekk dara lu ko xamal man daal waaru naa xamal loolu kéemaan foo xam ne kenn du fa tuur deret till mën koo xam ba def demi loolu nag da koo wax rek ba àggal till gi def demi ñëwaat ba janoog ñoom ne <laughs> man de tey laa waaru yéen yéen a ma gën a yéeme fuuf yéen ñi nga xam ne yonent yàlla muhammad mi gën ci asamaan gën ci suuf mu ngi ci seen biir di leen woo ci yàlla te ba tey mën a guleen koo gëm yéen a ma gën a yéeme loolu la wax nag defaat demi tour dellu abu abu jëhlin ñàkk lu muy wax ne man de jaaxle naa muhammad daal njibar na ba njibar sax tille yeeg këwél yëpp xam nga kii yàlla boo ko boolewul ci njub gi hmm? moo tax góor gi busri ne way xa qawmin jafaw nabiyan bi ardin alifatahu dibaabuha wa dibaau maa ngi yéem ci nit ñoo xam ne bëccëgal nañ yonent boo xam ne yonent boobu alifatahu miin na ko dibaabuha mbëtt yi wa dibaab ba ci till yi sax xam nañ ko nit ña moom réere ko xam nga loolu kéemaan kon boobu bokk na ci mujizaatuhu sallallahu alayhi wa sallam moom yonent bi bokk na ci ay mucjizaatam li mu jëflanteeg suraaqatu bnu malik al mudlaji suraaqatu bnu malik benn waay la boo xam ne moo déggoon ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu ngi nee dem na rëcc dëkk bi waaye ku ko dabu tabaarakallahu ba indil ñu bopp bi moo xam xayyan aw mayitan danañ la faye téeméeri gëléem góor gi dégg ko te moom musul musul dëkkmal gawar ci gawar di dabu dabi ji lu mu dabu mu jël fasam nëbbatu pour bañ koo seddoo kenn téeméeri gëléem yi dem ba seen yonent bi naan mu ngi nele nettali nañ ko ci gannaaw waaye fa mujj ñëpp xam nañ ko al amaana al amaana yaa rasulallah la mujj wax ndax saaxat xawaa i mu jawaadi yi tabaarakallahu fasam wi doon daw di naaru góor gaaw lool dafa dem ba dëgmal yonent bi lu matul trois mètres sëtëx ci biir suuf si mu xam ne lii du nen mu force jug daanu moom ndax dama ne lu doon dawee vitesse bu tànki kanam yi sëtëxee yow mi nekkoon ci kaw nooy def xam nga da nga jëlëkkalu mu ne man problème am na parce que bu mu juddoo ba tey mosuma daanu ci fas gawar laa woon jug nag fexe fexe man ma ne mënul jug mu dem ñaan yonent bi njëkk ba yonent bi ne ko jéggal naa la fas wi buqi tànk yi nee na li ko gën a yéem fa fas wi bëtaxoon bi mu buqee tànk yi saxaar la fa gis waaye xelam demaat ci téeméeri gëléem yi mu toppwaat ko ñu téeméeri gëléem neexul nit dund na ba dee amu ko teraanga ji duma rëcc dabaatal ko loolu répété wu waat dabaatal ko loolu répété wu troisième ba nag dafa gis tànk yi maanaam tànku jawaat bi muy naaru góor gi non seulement sëtëx na ba dugalaale moom ñaari tànkam moom moom ñaari tànkam yi newoon ci kaw euh, fas wi moo xam ne caaxaan faaxe na te bu toogee ba lii woon nag ay gëléem jaru ko teranga loo loo fekkee te la jéggalu nee na fa alimtu anna rajula mamnuun mu ne mbaal ma baal ma maa ngi lay yëgal ne boo demee ci xuntu sàngam dama lay jox sama fitt wi mu doon garanti ci yow xur sàngam boo fa defee demee la fa nekk di jur yëpp maa ko moom neel sàmm bi rek maa la jox fitt bi dina ko xam jëlal la fa ne yëpp te baal ma bi ne ko soxlaw ma sa alal waaw damay laaj alal ju toll nii noo koy amee yow di ut yoo ci dolli ba nar a rey sa bopp Suraaqatu bnu Maalik mu ne ko soxlaw ma sa alal mu nekk léegi lu ma lay rendre service mu nekk euh, yoon wii nga jaar ba gis ma ku fi nar a jaarati fexeel ba découragé ko ba mu bañ maa topp moom xam na ne sax xamul lu mu koy wax ndax ku ko toppoon itam du tax sax nga am la nga bëgg loolu dafa bokk ci mujizaatam téere yi indi nañ ko bokk na ci mujizaatam itam la jiitu xew-xew bii mooy xaaru abi thawr xunt moo xam ne kenn xamul ñaata euh, ci ay at la am ay téeméeri téeméeri at yont yàlla mu muhammad dugg fa amul cinq minutes yàlla yabal euh, euh, ankabut muy jargoñ ak xamaam ne leen ci lum gaaw gaaw gaaw gaaw tàggaleen fii te defar fi tabaarakallahu néeg loolu ñu def ko ci lu matul cinq minutes te ku ne xam na ne néegu jargoñ ak tàgg dana jël temps bu bari pour mën a sottee noonu euh, keroog waa Quraysh ba ñëwee ba tiim ko dañ ne ñaar yi gën a vulnérable moo fi nekk mooy ki gën a gaaw a daw bu gisee nit mooy picc euh, mooy mooy mooy mooy picc maanaam maanaam euh, pitax buy seen nit rek di daw dëgg la ma dëgg demal rek ne da ngay jàpp piccu ramatu di nga daw fii ba Tiwaawan doo ko jot hmm? waaw léegi kii nan la mën a nekkee fii waa ji ne ci biir mënul ne bi ci mooy li gën a gaaw a yàqu mooy néegu jargoñ wa inna awhanal buyuti la baytul ankabut nan la ko mën a rombee traversé dugub ko new fi te ñoom mënuñu nangu ne dugub yonent yàlla Muhammad moo jiitu néegu jargoñ bi ak tàggug petax gi ñu ne kon loolu mënul gaawee noonu ko new loolu mu'jiza la bu ko yàlla defal bokk na ci ay mu'jizaatam moom sallallahu alayhi wa bi mu demee madinatu munawwara toog fa mooy xaniina aljiza yonent bi bi bi mu defar loo jumaam ba ñu defaral ko ko fa tabaarakallahu dafa wax nañ ko indil benn tronu tàndarma ñu dagg benn tronu tàndarma indil ko ko ci la daan taxaw nag di xutba boobu amagul min baram day taxaw di ci teg loxoom di xutba bi ñu demee ba <clears throat> benn jigéen ñëw ci yonent bi ne ko man de dama am benn jàmm bu ne kër ga euh, moom yàlla dogal na tailleur la te euh, astafurlah menuisier la te yàlla may na ko ci xam-xamu bant moom nag daf ma proposé woon que boo bëggee moom mën na la defal benn mihrab boo xam ne day am d'abord chaise lu mel ni fauteuil ba pare day am benn escalier boo mën a taxaw léegi dina servir ñaar fauteuil lay doon bu xaw a kawe ba pare dina am espace boo mën a taxawee di ci xutba nit ñi bu ko defee mbooloo mi di la gis ndax ñii ngay taxawee ci suuf si di téye sa loxo ci bant boobu loolu moo koy gën a baax yeneen ci bi ne ah kay loolu mën naa nekk ndax lépp loo xam ne day bijji njariñ rek mën naa nekk ndaw soosu nag moo dem wax ko jaamam ba mu defar ko nag yenu ko indi ko ci jumaa ji biñ ko indee nag mu doon mihrab boo xam ne nii dafa am place booy tooge ak espace bu yaatu booy taxaw pour xutba fa tabaarakallaahu ñu tegal ko yonent bi la automatiquement la balañ koo teg lan la ñuy dindi bant ba tron tronu tàndarma ba fa nekkoon la ñu buddi génn ko ci jàkka ji teg ko nële sëpp ko foofu defar lii nag ba àggal yonent bi daal naka lay yéeg taxaw sëpp nag nit ñi pour ñëpp mën koo gis ne ayyuhan naas ñu jékki-jékki dégg lu mel ni clameur mu na di jooy mu doon son bu waa Madina yëpp di dégg mel ni machine bu ñu taal ku nekk gestu lii lan la lii lan la ñu gestu gestu gisuñu liy jooy lan la te xam nga garab guy jooy baat bi du neex baat bi du neex mu def ko nag benn son rek xam nga nit ku doon jooy sax dina jooy ba yàgg noy moom noyul mu def ko benn son rek di yuuxu kenn déggatul bi ñuy xam ne moom euh, xam nga fu son jóge boo ko rombee dina la féete gannaaw boo ko dégmalee dina la féete kanam bi ñu xoolee xool gis ne son bi ci biir tron boobu lay jibe muy ëkku tàndarma ñu ne yaa rasulallah dafa mel ni waa ji mooy jooy yonent yàlla muhammad ree na wax na dëgg day mettit lu tàggoo gi ma tàggook moom ne cëpp cëpp cëpp wàcc mihrab bi dégmal ko nag nit ñépp a ngi xool mu ñëw ba ci moom tàppa tàppal ko tàpp tàppal ko téere yi nee nañ mu ngi mel ni kuy nax doomam tàppa tàppal ko waaye noppil waay waay waay noppil waay noppil waay noppil son bi di wàññi wàññeeku ndànk-ndànk di wàññeeku ndànk-ndànk mu mel ni daal mu ngi nangu nax yi son bi di wàññeeku ndànk-ndànk ba nekk kamaj mel ni rajo wuñ fay yonent bi nag defaat demi tour ne saxaaba yi dégg ngeen li ma doon waxtaan ak moom ñun ko déet ñun koy jaaxle nañu mu ne d'ailleurs mu ngi mettit lu téye gi ma ko daan téye muy bànneexoo sama jëmm loolu ka échappé moo ko metti ba muy jooy mais yemul ci loolu bokkaat na ci li ka metti moo di fa tabarakallahu euh, ndax wax naa ci gannaaw ne euh, jamiul xalqi mu anni rasulullah illaa usaatul jinni wal insi yonent bi ne lu yàlla bind xam na ne maay rasulullah lu dul mooykatu yàlla yi nit ñi ak jinne yi kon ëkk gi bokkul ci ñoom kon xamoon na ne maay rasulullah mu ma daan déggee tàggoo gi ma tàggoog moom la xamul nu ma koy def ñu ne ko léegi noo ko naxe mu ne ko dama dama ko proposé proposition benn mooy boo bëggee boo bëggee nga muñ tey tey tey donte dinañ tàqalikoo tey waaye nga muñ ba yowmal qiyaamati garanti naa ne yàlla dina la def benn garabu tàndarma ci sama biir kër àjjana loolu la bëgg ba ba tiit noppi ndax foogul woon ne am na boobu mérite mu tax yàlla moom jàmmi xam nga ne ëkk gu wow gii buñ ko diggee ne dina doon garab gu tooy gële te foofu xaalis dina fiha xam nga du arrêté ëkk gi ñàkk ko gëmee moo tax mu tiit ba noppi na noppi naa noppi naa noppi naa noppi naa waaw ku am yeneen ci bi ñàkkoo dara sala alayhillah moom la sëriñ bi di wax ne gannaaw nag ñi gëm maanaam ñi dul nit amuñu xel ñoo man di jooy ngir tàggook yonent bi waaw kii nit moom lu mu war a def moom hmm? bokk na ci min mu'jizaatihi sallallahu sa wa sallam ab dab dabb moo di li ngeen di wax mbëtt mbëtt xaw na niroog bar xaw na niroog euh, euh, beneen bi euh, unka xaw na niroog sindax waaw yii nii ñoo xaw a familier wu ci melokaan mais mbëtt moo leen gën a rëy mbëtt ñu bari dañ koy lekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk na koy lekk donte waxuñu ko ci shamail fekk na euh, ñu koy lekk ñu nekk ko kaay lekk mu ne man nag dama ko xaw a seexlu waaye lekk leen araamul am na ñuy tooñ sax ne ku sant mbay bu ko lekkee nangam nangam fekk na mbëtt daal des na ko lekk ku bëgg lekkal ku bëggul nag pour ko tere kenn benn arab yi nag moo xëyoon dem tabaarakallahu ci toolam doon doxi soxlaam di rëbb ji ba dajeeg benn mbëtt ci suba gi ay neuf heures et demi dàq ko ba dab ko rey ko mu ko reyee bañ mu yàqu tax mu xotti biir bi génne butit yi ci nekk yépp sànni ko ngir bañ mu gaaw a décomposé euh, jam ka nag bantam euh, maanaam wikkoo ko ci gannaawam doxi nag ay soxlaam di doxe ay soxlaam ba quinze heures mu ne naa ñibbi bi muy ñibbi nag bay dugg a Madinatul Munawwara dafa fekk mbooloo mu wër kenn kenn nekk ci biir mbooloo mi di wax Euh, mbooloo bi di ko déglu ndekete boobu yonent bi mooy doog a jógee màkkatal mukarrama doon euh, gàddaay si ba ñëw xubaa nit ñi dar noonu mu mel ni kuy bayaan arabi bi de waaw lii la la di ñii la ñu nekk fii benn waay moo fi taxaw nee na ab yonent la mu ne luy yonent mu ne nee yàlla moo ko yónni directement mooy wax ak moom mu ne xajal leen ba ma jàll puus nit ñi ba dugg ci cercle bi fekk yonent bi taxaw ci digg bi yonent bi jàmbaar la boobu moyen de communication amul amul rajo bu mën a waxe léegi day taxaw ci digg mbooloo mi mbooloo mi dar ka muy wax di tourner ci ñoom muy wax di tourner ci ñoom ngir rek jotal message yu yàlla yow nga tëdd rek message boobu jot la nga jot ci gratuitement te jot sonnoo ci nga ne doo delloo njukkal yonent boobu jaaduwul muy wax di tourner waa ji nag romb mbooloo mi ñëw ba ci moom nuyu ko nekk ñii dañ ma wax moom kaw kaw bi nekk ñii dañ ma wax ne tas amu annaka rasulullah ñii dañ ma wax ne ma yow yaa wax ne ab yonent nga mu nekk ajal axa kay dëgg la kay arabi bi ci bu doon tey mu mel ni ku ree mu mel ni ku ree reewu kii daal moo yabaate nekk laa amanu bika illa an amana an amana bika hada la gëwma la duma la gëm lu dul mbëtt mi ma rey ci suba moo la gëm jubluwu ci woon nag kéemaan gi de maanaam dafa bëggoon wax rek ne ne gaw ma maanaam feeg mbëtt mii jugul ba gëm la man du ma la gëm loolu lan lay firi mooy gëwul loolu rek la bëggoon wax mais bi muy wax ndekete misaal bi mu joxe baaxul parce que dafa jàppoon ne lu manta la ba tax mu naan du ma ko def caay gëwuma la dara bu ma la gëmee mbëtt mi moo la gëm amul ñu koy wax ba tey xam nga saa bu ma la gëmee miir bi la gëm pourtant miir bi conscient na di yow yaa yëgul mu ne ko bu ma la gëmee mbëtt mii ma rey ci suba moo la gëm yonente bi ree nee naa la daawul mer na janoog waa ji nekk pour mbëtt mi rek gëm ma mu naa ah, mu ne ko yomb na lool mu ne ko nga <laughs> yow yow sax xorom de mbëtt mii mu gëm ma yomb na laa wax wàccil ma mbëtt mi wàccil ma mbëtt mi waa ji sawar ci lool nag moom it mel ni ki seetaat film jël yatam boobu mu lonkoo woon ci mbëtt mi mbëtt mi féete ka ci mbaggu gannaawam moom la wàcc nag nekk bàcc rocc ni mu jame woon mbëtt mi sànni ko ci kanamu yonent bi xanaa mbëtt mi nee naa la vidé nañu buti ya yaa gën a depuis suba yi nee nañu bopp bi la jàpp di rombale loxo bi bopp bi maanaam loxo bi ñëw ba ci ndiggali euh, mais fu fu fu loxo bi romba rek loolu day dund fu loxo bi romb loolu dund bi mu agsi ci genn gi muy cëppi cëppi muy cëppi cëppi yemul ci yemul yemul sax ci dund dund na arab bi nag moom dafa lok ndar boole ko Casamance waxatul lok ko tiit yonent bi yokkal ka ci nag leneen ndax moom dekkil gi la lay yéem yonent bi janoog moom nekk man ana yaa dabb yow till gi man maay kooku ne maa ngi sant yàlla ci à haute maa ngi sant yàlla di ko gërëm alladi fil arshi samauhu istiwauhu ki nga xam ne mu nga loose ci arsh toog bu rafetam boobu wa fil bahri mulkuhu grandeur am ku ko bëgg a gis duggal géej wa fil ardi sultaanuhu suuf si nag ci la euh, maanaam souveraineté nekk mu ne ko yooyu ngay lim yow dabb laaju ma la ko dama ne man anaa xam naa tontoogul man maay mu ne que innaka la rasulullahi xaqan wa xaatima nabiyina wa sama ahli sama wal yow ku yàlla bind maa ngi lay yëgal ne yaay sangam yaay xaatimu nabiyina imaamul mursalin lii nag bi mu koy wax wax ko ci làmmeñu mbëtt de làmmeñu nit laa wax arab yu fasaa ak son bu baree bari ba ñëpp di ko déggandoo loolu am waa ji këpp suuf këpp suuf ne ashhadu an laa ilaaha illallah wa rasulullah da doon weddi faf gëm moom yemul ci gëm mais dafa dem ci mbooloom naan leen yéen ndekete yéen a ngi tardé ndax yàlla bind na tabaarakallahu ndeke ki gën ci mbindeef yi mu ngi woote te ñun yëguñu fexe ba aw nitam gëm loolu min mu'jizaat yi loolu du kéemaan ah kéemaan bu rëy la fa tabaarakallahu bokk na ci ay kéemaanam moom sallallahu alayhi wa benn bés lay doxantu euh, benn bés lay doxantu euh, tabaarakallahu benn kéwél mu dégg benn baat benn baat buy onk baat bi di onk fa tabarakallahu mu gëstu naan waaw anamu anamu dégg baat bi gisu ko anamu anamu ba yàgg loolu mu naan anamu nekk maa ngi nii man maay wax ak yow man kéwél gi yaa rasulallah ndax nit ay jëmmay wax ak moom te gisu ko mu xool xool tuñ tuñu xool fu ne mu nekk ka man la jarul nga may wër maa la féete gannaaw man la yaa rasulallah mu gëstu gis kéwél gu ñu takk kéwél nag mooy seexu bëy bëy mi nga xam ñu ngi takk ñaari tànk yi fa tabarakallahu nee na mu nekk ka maa ngi nii mu gëstu yem ci moom seeni bët ñeent mu gis mu nekk lal la mu nekk ka yaa rasulallah an xis nii dimbali ma dimbali ma mu nekk ci lan mu nekk ka waa ji kii tëdd nii kii bu nee na yonent bi ci la xool nag ci wetam gis ndekete benn sàmm moo doon rëbb rëbb ko ba takk ko noonu xam naa sonn tëdd nag doon nelaw noonu kéwél gi ne ko waa ji tëdd moo ma fekk ma jugoon doon uti ji lu ma lekk pour am soow bu ma nampalee samay doom bi ma lekkee nag ba doon ne pour nàmpali gi mu dogaale ma ci dogalu yàlla mu dogale ma fas yéene maa yóbbu waa këram yóbbul waa këram loolu coobare yàlla la ma bëggoon nag lenn rek laa soxla woon ci yow boo mënoon intervenir ci waa ji comme sama njaboot ñu ngi may xaar te lii laa leen tàgg woon lenn rek laa bëgg xam naa ne lii mooy dogalu yàlla ci man dina ma reere waaye mu may ma rek ma dem nampal samay doom tàggoog ñoom ne leen nag nañ góorgóorlu dès dès maintenant di dundal seen bopp te buñ ma xaarati ndax man dogalu yàlla ñëw na ci man loolu rek laa bëggoon nga interveniral ma ko yonent bi ne ndax bu ma la bàyyee di nga dem di nga dellu si mu ne qa addabani allahu adab al ishaar in lam jitu ko in lam aji ya rasulallah bu ma demee ñëw li naan kala nax nangam bu ma la bëggee nax yàlla na yàlla e, e, e, mbugal ma mbugalu mbugalu kuy jël alalu nit ñi xoolal kéwél gi loolu la wax al ishaar mooy ki nga xam ne day dajale di récupérer di pour cent wu nit ñi dix pour cent wu nit ñi xam naa comptabilité loolu la ñuy def waaw man dama ci am dix pour cent xamoo ne pour cent yooyu dinañ fudd sa ndigg boo duggee boo duggee bàmmeel kaar dix pour cent yi di ko dinañ fudd sa ndigg te duma yiñ lay duma duma yu metti lay doon ba yàlla xamal ko kéwél ba mu naan yonent bi bu ma la bëggee nax yàlla yàlla mbugal ma mbugalu kooku borom di pour cent yooyu di jël alalu nit ñi bi xayri tibi nafsin yonent bi ci la ko tekki yeewul waa ji de daf ko tekki bàyyi ko mu daw ba mu dawee yonent bi nag garanti ko toog fa moom moom moo fa toog pour lan bu waa ji ñëwul moom mu takk boppam sallallahu alayhi wa sallam kii moo gore kéwél ga nag moo dem nampal ay doomam wax leen dogalu yàlla bi xew ñooñu jooyandoo mu ne leen toog leen lii la yàlla dogal ñooñu nekk yaay toogal ba ci kanam ñu féexlu mu ne yéen yëgu leen li xew dama damaa hypothéqué ki gën ci li yàlla bind muy yon ci yàlla Muhammad mu nga toog foofu di ma xaar bàyyi leen ma dem kéwél googu nag moo daw daw yu gaaw daw yu gaaw di daw di daw di mais di daw mais da da doon feccaale feccu jaxaay lay fecc maanaam day teg benn tànk yëkki bi ci des tegaat beneen tànk yëkki bi ci des noonu lay doxe ba agsi ci yonent bi naan ki gën ci li yàlla bind laa am chance su dajal ki gën ci li yàlla bind laa am chance mu garanti ma loolu la bëggee bay bay bay bay def noonu daal di fecce noonu feccu xaj la mooy jaxaay waaye li yéeme mooy kii di fecce nii bëggee nii dañ koy rey ji waaw ku ñuy rey ndax di war ngaa bëggee nii déedéet bi mu ñëwee moom nag bi muy agsi la sàmmkat bi ne tërët yeew gis yonent yàlla Muhammad gestu gisul li mu takkoon fi muy xoole seen ka muy daw di ñëw mu nuyu yonent bi xamoon na ko jullit la woon ne yaa rasulallah lu xew mu ne ko kii moo taxoon tabaarakallahu ma toogoon fii kéwél gi nag bi muy ñëw la ko yonent bi takk mu ne kaa ah, ci lan noonu da ko soxla woon jëlal mu ne déedéet suñu pa suñu soxla pare na mu ne kaa ah, ci lan mu ne ko dama fii romba mu wooma ne waa ji moo ma jël nangam ma expliqué ma lépp ma yewwi woon ko nag donte sax waxuma la ko woon toog toog fii garanti doon ko xaar na xam naa ne ku yàlla bind sañu la wax ci wax ak man lu mu tebbi lu dul nit ak jinne ju ju ma gëmul moom nag mooy dooga a agsi nii ma bëggoon kaa takkaat waa ji jooy nekk ko yonent yàlla Muhammad yaa gore gannaaw yow nag yaay rus naa man arabi bi man sàmmkat bi nga garanti jëmm ba pare ma koy yóbbuwaat sama kër may naa la ko ngir yàlla yonent bi sant ko gërëm ko ne yow till bi yow it may mayaat naa la sa liberté demal nga nuyul ma xale ya loolu kéwél gi nag bi muy dellu jaxaay yi daf ko yokko taarika bu dawee jaar côté bi dawaat jaar côté côté bi di tëb di dal xam naa bu demee ci xale réveillon lay doon lii daal ci gàttal fa tabarakallahu moom mooy première partie bi ci mujizaatam nga xam ne wax nañ ne àdduna ak àllaaxira yëpp min mujizaatihi waaye ñu jukki ci loo xam ne kii déglu dina ko mën a gàgganti koo xam ne kii du moroomu kenn yal na yàlla yokk leeram hada huwa tawfiq wassalaamu aleykum wa